jërë ngeen jëf mbokki internet bpactu point comme ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen jaajëfal te ñëwaat ak yéen ci seen yeneen xibaaru Actunet comme ni ñu amee habitude di ci ànd ak yéen saa su nekk seen xibaar yi gën a fës ci réseaux sociaux yi waaye tey nag dañ koy daal di ubbee ba tey ak wàllum euh, fétichisme bi nga xamante ni euh, def na ab jayo semaine ba bale ñu génn ginnaaw ba ñu faatee euh, bakkanu Lobe Ndiaye fétiche boobu féticheur boobu ñuy woowee tu turu Amidou Sidibé bàyyeekoo woon ca diwaanu Mali nag looloo tax ñu ci bari jamono ji génn nañu di def ay révélation li ñu jot a dund ak féticheur li nga xamante ni daal moom la leen féticheur jot a def ci àdduna ba tax na tey ji bu ñu fuyee li nga xamante ni moo di journalu l'observateur fukki nit ak euh, lu ko ëpp ñu ci bari jànkoon li nga xamante ni moom la ñu jot a jànkoonteel ak féticheurs yi bari na wàllum xaalis wàllum sexualité maanaam daal ñoo xamante ni dañuy détourner seen xel sàkku leen wala sax ñuy jéem a sàkku leen ngir jël li nga xamante ni moom la yor ci ñoom yemul foofu tamit waaye mbirum meurtre nekk na lu fréquent euh, seen biir ndax des fois ñu jox la ay gàllaaj yoo xamante ni au lieu que mu la comme ni nga ko bëggee waaye day mujjee nekk sa gàllankoor tey nag nataalu Hamidou Sidibé lañ ci fësal moom mi nga xamante ni ji ji moom moo faat bakkanu euh, Lobe Ndiaye waaye yemul foofu tamit buñ dikkaatee ci li nga xamante ni moom la enquête bi fësal euh, ci mbirum euh, Lobe Ndiaye bu ñu dikkaatee ci li nga xamante ne moom la enquête bi fësal ci euh, histoire Lobé Ndiaye ak Amidou Sidibé nee nañu première enquête bi euh, mi ngi doon révélé que ni Amidou Sidibé dañu moom euh, faatul woon bakkanam mais plutôt Awa Sow faatoon bakkanam da ko jàppale mu dem sànni ko ndax Awa Sow moom moo ñëw présenté ko ki nga xamante ni moom moo di Lobé Ndiaye waaye nag takk dere ku ñu bu ñu jàkkaarloo ak yow am nañu def ak yow foo jaar di nga wax dëgg après loolu ci la daal di joxe révélation yu bees yi di jégle ni ni moom moo ci gën a ñaw sax mooy ginnaaw ba ñu faatee bakkanam nettoyé chambre bi ba noppi génn dem sànni ko fële ne la ca diwaanu jam ñaajo ci benn sàkk dañoo daal di jubali ca diwaanu almadi euh, féete li nga xamante ne moom moo di seen guddi gi mu mel ni nag que ni euh, dañ koo def ba pare te dara safu leen ci. ñu daal di wéyal suñuy xibaax ci euh, kaw kilifa bu Y'en a kilifa la peur comme ni ko ñu bari gën a xamee coow bi nga xamante ni nag moom moo nekk ci ndoddam actuellement ñu koy duut baaraamu tumba wàllum trafic de faux visa ak wàllum diplomatique nekk na loo xamante ni nag première vidéo bi moom moo ko siiwaloon waa Leral TV génne woon ko euh, maire amee moom buy wootu turu Thierno moom nag moo jëloon vidéo bi à son insu ci oto bi euh, kilifa première déclaration bi mu defoon da ko weddi ba mu set wecci di yëgle ni Leral TV ak xaritam boobu da leen toppee fa benn ndax moom deflu woon lu dul business oto day jënd oto di ko jaayaat loolu la doon wooye bu rouge bi te alors que nañu intercepté woon bu rouge bi mooy passeport euh, diplomatique bi waaye nag ginnaaw ba mu menacé waa leeral waa leeral dañ jaare dañ faa jaare du moins euh, génnewaat beneen vidéo boo xamante ni moom moo ko gën a entassé vidéo boobu nag du lenn lu dul ñu ciy gis euh, moom kilifa bu Y'en a di jokk jolante li nga xamante ni moom moo di passeport yooyee looloo waral nag jamono ji ñu ci bari génn nañu soutenir ko ndax jàpp nañu loolu noonu dafa fréquent ci milieu showbiz bi ñu nekk ndax bari na ci ay artistes yoo xamante ni tey jii dañuy jël nit wutal ko visa ngir ànd ak moom ñu dañ koo def li nga deuxième business waaye Karim Xrum Xax nag moom euh, ratewu ko benn yoon jàpp na ni daal euh, sa moromu jullit boo bëggee ànd na ni kilifa nekk na ku ñëpp bu ñu àndandoowee di xeex li nga xamante ni moom moo di valeur Sénégal saa su nekk ñu dëkk di dut baaraamu tuuma Macky Sall ak ay ministre am naan ñoo ngi jël alalu réew mi ñoo ngi jël ay passeport diplomatique di ko jox seen njaboot gi bëgg a xeex loolu ba mu dem ci Sénégal donc ñu jékki-jékki gis kilifa euh, vidéo boo xamante ni moom dafa leeral dëgg gi yëpp donc Karim Xrum Xax jàpp na ni daal daal yoon da koo war a convoqué comme ni mu war a convoqué ñëpp auditionné ko laaj ko dëgg-dëgg ña ñoo nekk ci ginnaaw trafic de faux visa yi ak ña ñoo nekk ci traficu li nga xamante ne ma pa li nga xamante ni moom moo di passeport diplomatique yi ndax 6 millions de francs CFA ku ko am dem moom euh, Karim Xurum Xaq mi ngi doon fàttali ne ba mu tëddee lalu hôpital euh, Tunkara fekk na ko fa di ko bëgg a jox passeport diplomatique ngir muy wër di faju fu ko neex waaye dafa lankoon ba set wecc ci jàpp na ni frère la xaritam la léppam la mais jullit boo ko bëggee jubbanti danga koy wax dëgg décevoir na leen décevoir na leen enfin mënul xam sax ni ba xam kilifa ci pouvoir bi la féete ci ñiy def ñu njaaj la wala ci ñi xeexal askan bi la bokk bu ñu jàllee fële na ci diwaanu Pikine Samba saar mi nga xamante ne moom moo fi bàyyeekoo ginnaaw ba mu defee benn attaque daal di ñàkk bakkanam euh, ci assemblée général bu ñu doon amal waa Pikine nag jamono ji ñëpp jóg nañu di réclamer justice ndax nee nañu génn àdduna Samba Sarr warul nekk loo xamante ne nit ñi dañ koy fàttee noonu rawatina ci condition yi nga xamante ni euh, moom la ñàkkee bakkanam mu nekkoon nit boo xamante ni waa Pikine dañ koo gërëmoon lool ndax mi ngi leen doon jàppale euh, ci yu baree bari rawatina jeunes yi démb ba tey nag comme ni ngeen ko gisee ñoo ngi génn ci mbedd yi di taal ay pneu ak def ay manifestation nee nañu tànk nguur gi yëkkatiwul kàddu wax ne dinañu ubbi benn information benn enquête judiciaire dinañu ubbi benn enquête judiciaire ci meurtre du tànk nguur gi ay kàddoom fay na tànk nguur gi yëkkatiwul ay kàddoom ne dinañu ubbi benn euh, enquête judiciaire euh, ci génn ko àdduna Samba Sarr fas yéene wuñu benn yoon bàyyi ko mu daal di nax saay bu ñu ñëwee ci wàllum sport euh, kii nii di El Hadji Ousseynou Diouf yëkkati na ay kàddoom di ko jëmale ci euh, Sadio Mané euh, ginnaaw ba ñu defee seen ñaari match amical ya ca stade bu Thiès ba Sadio Mané nag moom alerté woon na autorité yi ngir ñu bàyyi xel bu baax a baax pelouse ba ndax nekk na pelouse boo xamante ne mën na leen a créer ay problème à maanaam bu ñu fa amee ay match yu am importance mën na nekk loo xamante ne dina leen gàllankoor ba buñ ci waroon a am ndam duñ ko fa amee ndax nekk na pelouse bu metti El Hadji Ousseynou Diouf nag donte am na relation bu baax ak Sadio Mané waaye teewul ni recadré na ko ci côté boobu mi ngi koy yëgal ni man ba may nekk Ballon d'Or nekkoon naa ko ci période boo xamante ni moo gënoon a difficile stade yi ñu doon joué moo nekkoon stade yi xamante ni moo gënoon a métti joué pelouse yoo xamante ni moom moo gënoon a bon waaye dafa jàpp ni nag nouvelle génération bi maanaam footballeur yu bees yi maanaam footballeur yu bees yi dañoo xaw a gatewu lool ndax li ñuy dem Europe di fa jouer mooy loo tax ñu yaakaar ne lépp dafa mën a nekk la même chose alors que war nañ cee mën a nekk ku ci nekk sax war nga cee mën a gagné ballon d'or euh, ci li nga xamante ni moom moo di pelouse boobee donc dafa mel ni El Hadj Ousseynou Diouf dafa rangé wu ci côté autorité yu doon wax ne lii nii la ñu amagum ay africain la ñu amaguñu yenn moyens yi pour defar yenn pelouse yi nga xamante ni moom la ñuy gis ca diwaanu Europe. ñu daal di koy jeexalee ak wàllum làmba gis nañ ci nag ñaari journée yi nga xamante ni moom la CNG tëggoon euh, fële na la ci diwaanu arène nationale ñaari journée yi nga xamante ne dañ ci doon xaar euh, képp kuy yëngu ci axlu làmb muy promoteur muy lutteur muy amateur képp ku mënti doon ngir nga ñëw vacciné wu loolu la ñu trouvé woon comme porte que ni bu ñu réunir les conditions nécessaires dañu mën a am bunt ba ubbiwaat li nga xamante ni moom moo di làmb ji maanaam ku ci nekk am sa carnet de vaccination boo xamante ni moom mooy nekk sa laissez-passer nga mën a dugg ci arène bi fekkee combat yi rawatina ñi nga xamante ne ñoom ñoo di mbër yi mbër yi ndaw yëpp nag gis nañ leen ñu daal di fay dem jël seen euh, dose vaccin wane nañ ko ñëpp teg ci seen wët waaye VIP euh, rawatina waaye VIP yu ci ëpp teguñu seen euh, tànk ci bërëb boobee ñaar dong la ñu mën ni ñoom ñoom ñooy def exception bi ndax Balla Gaye gisoon nañ ko ci ab vidéo mu jël dose vaccination ma ki nii di Bombardier tamit vacciné woon na ndax dafa waroon a amal benn combat MMA boo xamante ni dañ ko annulé woon ci période boobu à ñoom ñaar nag ku ci mel ni Lac de ku ci mel ni Modou Lo ku ci mel ni Eumeu Sène ku ci mel ni euh, Gris Bordeaux amul kenn ci ñoom koo xamante ni euh, teg nga sa tànk ci ñaari journée yi nga xamante ni moom moo di journée de vaccination bi dañoo toogoon seen kër euh, doon woote téléphone naan dinañ ñëw telle heure telle heure ba ni ñaari journée yi jeexee te gisuñu leen Tafa Gueye nag daal dina ci def réaction jàpp na ni loolu déception la ci axlu làmb rawatina ci période bi nga xamante ni ci la ñu nekk bëgg a solution ngir mën a làmb ji jàpp na ni euh, ñi nga xamante ni ñoom ñoo di mbëri ndaw yi ñoom ñoo amal déception bi ba mënuñoo jamono ji taxaw wax ni ñoom taxaw nañu tembe ngir ko làmb ji daal di tàmbalewaat ba tey bu ñuy wax euh, ci euh, VIP yi kii nii di Gris nag daal di ne def ab sortie bu musclé wax comme ni ko Zarko waxee woon démb rek que ni jamono ji bu ñu amee ay tolof tolof wala ay jafe-jafe ci làmb ñenn waralu ko lu dul VIP yi ndax ñoom intérêt personnel la ñuy demee au lieu d'intérêt général ndax tey ji bu ñu doon xool intérêt général dinañu doxal loo xamante ni moom muy euh, jëmale ndawu làmb yi kanam maanaam niveau bi ñu toll tey bu leen tàllaloon loxo euh, jéem a xool naka lañ leen di jàppale tey ji ëllëg ci biir euh, bu ñu tollee ci niveau bi ñu nekk dinañ jàppale ndaw yi nekk seen ginnaaw mais gis na ni VIP bu ci nekk rek lenn moom mooy sa objectif am ko combat jël sa millions yu bari dugal ko sa poos di tukki di dem ak ñëw fàtte ñi nga xamante ni ñoo nekk seen ginnaaw bari na nag mbëri ndaw yu faral di dut ni ñoo ñu daal di ci bàyyi xel te xam ni làmb sport national la buñ ko yàqee ñu ñëpp a yàqu mbokk yi dafa mel ni li lañ leen indiloon seen xibaaru Actunet jaajëfal leen ñëpp jox leen dig daje bu suba ak jàmm incha allah jërë ngeen jëf